dal leen ak jàmm nopp dalootina loo waxadi waxadi soo gisee nen nen a ngi woykat bu xoromu bii di Ouzin Keita Paris génnee nañ ko de waaw Paris laa ne dañoo génnee Ouzin Keita ana lu ko waral ak nu mbir mi demee woykat bii di Ouzin Keita ñenn ñi di ko woowee Ouzin Barigo dafa jóge ko dem dafa jóge ko dakaar jëm Paris jaare ko Madrid ànd ak loolu mu ngi yore woon visa Schengen bu mucc ay waaye daanaka ba mu tegee tànkam biir Paris melokaanu colom gu doy waar ak xorom gu mu xoromu moo tax ñépp ràññeekoo ku nekk di ko xool loolu jaaxal policier français yi ba tax ñu jàpp ko daldi koy laaj lu waraloon ñëwam ci France Ouzin Keita daldi leen tontu ne leen moom ab artiste sénégalais international la waa wow waaye ñàkk dégg français ak làmmiñ bu taq indil na ko coon Ouzin Keita nee na leen man Ouzin yaa tudd artiste Sénégal international ya bilaay walaay nii la ko Ouzin waxee mu mel ni col gu doy waar gi ak wax ju leerul ji moo tax takk der yu France daal di jàpp Ouzin Keita yóbbu ko ba ca aéroport ba teg ko ci avion bi refoulé ko delloo si ko biir Sénégal mu mel ni Ouzin Keita dafa fàtte pomme du neew Sénégal du France ndax Ouzin dina delluwaat France ndax day porter plainte pour injustice xanaa ambassade bu Sénégal ca Paris yagul li xew yi lay ci jar nañu saytuwaat bu baax mbir mi li am ba des ci jamono ji ñu toll nii mooy ne Ouzin Keita mi ngi ci Sénégal di barang barigo jërë ngeen jëf